gis nañu xale yi di grève pour wax ne que dañoo bëgg a jàng dem nañu sax ba parents d'élèves seen bopp aussi wàcc nañu dans les rues gis nañ ko ñuy naa ne dañoo bëgg seen njabooti jàng donc ñun dañoo ñëw fii tey wax suñu naataango jàngalekat yi nañu nañu nañu delloo suñu xel ak suñu xalaat naam def nañu ay naam def nañu ay revendication mais le président de la république à travers son gouvernement tàllal nañu suñu loxo tàllal nañ seen loxo pour que ñu toog ñu waxtaan te bu ñu waxtaanee une première fois tegal nañ une enveloppe de 69 milliards démb tamit bu ñu génnee dégg nañ ni ñoom seen bopp ñoom noo ne le président de la république tegal na leen 90 milliards ci li ñu laajoon donc def naa war nañu téye loolu dem delluwaat dans les classes jàppale xale yi nga xamante ne vraiment amuñu leen di taxawal amuñu ñu nga xam ne ñu leen di leen di jàppale te ñun ñooy seen i yaay ñun ñooy seen i donc man ci lool ñun ci loolu leen di woowee pour que ñu vraiment ñu dellu dans les classes ñu jël lu ñu lu ñu leen tegal sur la table waaye ñu tere encore ñu continuer di jàngale beneen yoonee tamit ñu dellu ñu toogaat ak euh, gouvernement bi ñu gën a waxtaan. d'accord jàpp nga ni président Macky Sall def na ay effort.